am na 236 jigéen yuy faatu su si si 100 euh, 000 naissances yu ñu am am na si 236 yuy faatu donc euh, pour wàññi loolu li ñu siy gën a dimbali mooy euh, ñu ñuy sorel jur bi. rajo bi am na solo torop parce que bu fekkee ku nekk da nga toog sa ruq di jéem a xeex xeex njur bi jege. Euh, je pense que duñu ñuy atteindre yenn objectif yi donc ñun ñëpp bu ñu boolee suñu doole dans li ñuy euh, sociologue yi gynécologue yi hmm, sage femme yi ñëpp bu ñu àndee boole seen doole dinañ euh, gën a mën ñaax nit ñi si soreel njur bi pour wàññi jigéen ñi faatu si biir ëmb ak koo xam ne kii dañ koy jël mu nangu dugg ci stratégie bi des ci suñuy natt euh, ci Sénégal bëriwul fukk ak benn la euh, si téeméer yoo jël waaye ñun ñu ngi ci juróom-ñaar ci téeméer yoo jël ñu ne loolu tuuti na mën nañu am lu ëpp loolu ñu demee tamit ci li ñuy wax besoin non satisfait maanaam yow soxla nga service bi waaye xamoo fooy dem pour ñu mën la jox service bi su fekkente ne téeméer lañu nee nañu fukk ak juróom-ñett yi gisuñu si seen bopp ñu bëgg tamit nga xam ne ñoo nekk ci biir askan bi war a waxtaanee askan bi waxtaan waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw susciter demande bi pour ñu ñëw ci ñu di jox leen service bi mu nekk lu am solo ñoom it ñu wax fi seen jafe-jafe wax seen bëgg-bëgg ak li nga xam ne moom la ñuy xaar ci partenaire